làmb lan nu tàggee ne sunu papa El Hadj Gasson wuy jëna boromam sa diggante ak Père Gasson. waaw Fadel maa ngi lay ziar baax makat moom ma woo léegi nii appel ma ngi nii moom laa doon waxal léegi li ma wax daf maa woo rek ni ma nañ ko ñaanal ma ne ko lu xew mënu ma Père ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di wax nag àdduna nii la kullu nafsin zaa'iqatil mawt wa kullu man a fani wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram bay balla bakkan bu ñam dund Fadel bakkan bu ñam dund dina ñam dee danay ñaan yàlla ci barkent bi buy ñëw yàlla nu fekk ci lu neex yàlla waaye ku bëgg njaboot dem na nit ku baax dem na nit ku social dem na nit koo xam ni ku man nitam dem na muy Gaston Xali Mbengue ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana firdawsi yi ci barke Seydina Muhammad tey nga yoon ko yool lan nga dund ak père lu des sa bopp ci loo xam ne mënatul génn bay Balla Fadel Fadel damaa doy dafa doy war tey Fadel lii ma doon def tey mu yor micro central Gaston Xali moom ma jëkk a jox micro central ci lamb ne ma taxawal nga dëggal sa bopp parce que ndaanaan nga te mën nga ko yor peccum liir bu neexee nday yaa jàpp ca mbagg ya tey jii bu ma demee Modou Diouf ba man dara ci lamb grâce à Gaston Xali balaa moo dem tàggu ma lu mu xam wax ma ko lu mu am jox ma ci boole maag doomam ji makan nag mu bëgg ma ba yemalewu maag dara wax naa la ne léegi Gaston wundam sax du xiif dafa man ba man nitam te bëggul defet du ànd ak koy am defet bëgg lu baax bëgg réew mi bëgg Sénégal bëgg waaw góor nu nga ñaan yàlla daal ci barkent bi Fadel yàlla na ko yàlla xare àjjana